Ousmane Sonko euh, kàddoom yi ginnaaw bi mu bindee wax na tey ban jàngat nga ci def. waaw jàngat bi ma ci def de mooy euh, Ousmane Sonko tudd bi mu ko tudd. Oh. mu jaaroon tudd ko tudd na ko. nu ko tuddee. mu jaaroon si aw turam sax naa ne ma jàmbal jaañ mu gënoon a neex nii mu ko tuddee. non non mais Ousmane Sonko mosul tudd turam. waaw lii mu def nii moo raw tudd tur. acca ñëwal. koo xamante ni daa wax lu dëgg bu ñuul kuk. senegal gépp xam ne ma jàmbal jaañ lay wax. ah déedéet ma jàmbal si ñu lu fi asal moom lay waxal. ma Diagne moom fi ñuul kukk comme que ma Diagne ñuul na fi kukk te moo doon wax ay waxi Sonko waxi Sonko am Sonko indi Sonko ñuul fi kukk mais na jël ay matukaayam bu mu fi nekk di waaj daxaar turam lii koy weesu na tur yow Sénégal yaa fi gën a ñuul kukk ginnaaw Sénégal yaa fi gën a ñuul kukk yaa ko tooñ yaa ko tudd moom muy fayu ni ki nga xamante ni daa fen ba ñuul kukk nga naan ba mu tudd saa tur lim def kay moo raw tudd sa tur kon na jël ay matukaayam bu fekkee daa am lu muy wax na wax te xam ne Sonko moom aw na si kawam ba jaan yàlla xam ne Sonko aw na si kawam ba jaan waa d'accord non non mais ma jàmbal kese ñuulu fi moo fi ñuul kuk Ousmane Sonko jaaroon si am ba jaan bu mu fi toog naan bu jaaree sama kaw jaaroon si kawam ba jaan na fayu bu koy wax dara nag ko wax ah bon waaw kon mu riposté. balaa londee na indi fii lu leer wax ko Ousmane Sonko moom lay waxal de ñëpp xam nañ ni moom lay waxal te ni mu ko tuddee koo xam ne daa fen ba ñuul kuk fi mu nekk ni ndaje moo gisati mu ñëw ak kartaabalam nu xujj eh? sa dem si kii daa fen ba ñuul loolu dafa métti métti na trop mënut a dem fenn fi mu ndaje moom dem ñaa <laughs> eh, xoolal saa yi daa fen ba ñuul yooyu yooyu tuddoon ko mu tuddoon turam sax moo ko gën Ousmane Sonko bàyyi li muy def lii muy def nii ak tooñ la. non yow mii rek yaay tooñ. non da koo tooñ men tooñ gi mu ko tooñ metti na ma trop. waaw baax na waaw. jaajëf alaaji eh, ginnaaw internet yi ba kenn ku nekk di toj fa nga nekk. Eh, Assane ni mu waxee dafa mel ni moom ak ma jàmbal ñoo bëgg a moomale wax ji. Sonko waaye Sonko ba muy wax ba léegi defe naa ba ma xamee Sonko ba léegi musul tudd turu ñi ànd ak président Sall ñu koy jàppale ku dul turu président léegi nag lan moo waral lan moo waral audio bii nga foog.